mu sàkku ci man ne ma damaa bëgg nga dikk jàppale si son excellence président Macky Sall waxuma jëmam bët Macky Sall la ma wax ci téléphone bi avant ñu gisee ma ne ko lépp nga ma woo dinaa la ca foo ah, nekk ci Sénégal ma fekk la fa kon Baye Cheikh Bara ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay di sant bu baax sama frère Mohamed

yoo xam ne wér nañu ne bu ñu demee danañ fa nekkal département ba ñu fa nekkal seen bopp comme mon frère Mouhamed am na yaakaar ne ñu la fay suñ borom yóbbu ci jàmm di nga fa nekkal département de Mbacké ndax loolu di sant bu baax encore ci liste bi ngir ñu wax li nga xam ne ñoo nekk ci biir liste bi parce que Malakaaw nag dëgg la dikk na ak ndigal ak lépp waaye am nañ faneen fu ñu ko teg koo am na fi la ko doomi département bépp war a teg kon il faut que wax ñu nekk ci liste wax li tax ñu jàppale liste bi ndax ku mel ne sama yaay Rokhaya Diouf ku Mbàkke ku ne xam na taxawaayam ci askanu département de Mbàkke jàmbaar la kooku bu nekkee jigéen ñu investir ko ci ab liste bépp jigéen bu nekk ci département ba moo ko mën a jàppale ndax ci développement la yëngatu sonn ci nit ñi sonn ci ndaw ñi chaque jour bi ngi ci activité jeunesse xanaa bu ñu jëlee niveau bi teg ko ci loxo directeur des campagnes Abdoulaye Seck sa dagga sama mag sama xarit dana yóbbaale ñëpp. dëgg la de. Serigne Fallou Serigne Abdoulaye Mbacke Guèye Fatma. dëgg la. di wax rek Madakaw mi ngi regroupé plus de 36 groupements de féminines. dëgg la de. 36 responsables des féminines yëpp a ngi ci biir salle bi responsable bu ci nekk dañu leen saal bi deux cent personnes rek lay def bu ci kenn andi lu ëpp ñetti nit ñetti nit parce que il faut que ñu réserver autorité yi jàppalee nawet la nekk mais bu dul woon jàppalee nawet ngeen xam ne Madakaw du benn mouvement ci département de Mbacké liste bi nag li tax Madakaw soutenir ko ne liste yi te te liste yi ñu bari seet si nañ Madakaw ki ci jiitu mooy Cheikh Alassane Sène def naa ko naataange Sénégal dikk na ko sama kër defal na ma ay proposition yu bëri ñu xam ne bu doon ay moyens wala xaalis comme ni ñu ko waxee léegi dana dem campagne yi jëm ñeneen par jot bokk gis-gis ñëw na sama kër defal na ma ay proposition te pourtant amuñu benn proposition bu ñu jëlee benn bokk yaakaar mais dañoo gis ne Madakaw li ko intéressé mooy askanu département de Mbacké te profil yi gis ci liste Benno Bokk Yaakaar nekkul ci benn liste au niveau départemental te mu mënuñ di xeex développement département bi di porter ay liste yoo xam ne wér nañ ni ñi ci nekk bu ñu demee ensemble bu ñu présenté wu ñu xeet département de Mbacké du ñu ko def bi waa Malakaw bokk na ci benn point ba ca dolli ko muy son excellence président Macky Sall ku ne xam yéeneem ci Sénégal mais ku ne xam yéeneem ci Touba président bu doon ay xob mooy def mu def ay investisseurs fii ci dëkk bi ñu ne kon du fi def dara waaye kiw boole na lu ko neex ak lu ko métti ndax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma def na woon Abdou Diouf 1988 ba ñu jël engagement ba ci moom ku liggéeyal Serigne Touba mu la jëlee fekk. waaw keneen soxlawu ci suñu jëmm yi nag dara lu suñu carte yu ñu yor doon keneen bu ko war war nga Serigne Touba. lu Abdou Diouf liggéeyaloon Serigne Touba 1988 président la Macky Sall asaka ja ju Abdou Diouf di agsiwul ci jëfi président Macky Sall tey ci Touba. kon jaar na bépp ndaw bu nekk ci département bi ñu war a delloosiwaat suñu xel ñun ñëpp ci ñu takku fexe ba nga ñaay li nga xam ne li ma gëm man depuis 2012 ba léegi Serigne Touba ak koy jox département de Mbacké di ci teg loxo ah. Serigne Mountakha Al Bachir. Ah. yàlla na ko suñu borom yàggal ko suñu kanam dafa wax lu am solo ñu mu man a gaaw def ci réunion ci comité de l'éleveur bi ci point bi ñu doon def ndax daf na ñu mu turé président la bi Macky ba léegi ma ne murit yu njëkk ya daawuñ dégg bëggu Serigne Touba ci kàddoom dañ ko daan kon ku ne xam na ne ci adduna boo waxee sa bakkan yéenay sëñ Mountakha mooy président Macky Sall am ndam ci élection yi ñun nag duñ nekk ay murit sëñ Mountakha yëkkati lii ci kàddu wax ko Mimi Touré mi nga xam ne tey moo nekk tête de liste nationale ñaanal ko ngir mu am ndam ñuy contre liste boobu di ñu ko def. Basia Marakaw jël na engagement incha allah rabbi suñ borom de mooy yor nga ñaan dinañ ko ko ñaan bu gënee rek ci suñu jëmm yàlla ñu ko may. maa ngi sant ñëpp mais rawatina jigéen ñi Marakaw jigéen ñi am jom. di jaaral ci sant bi soxna Fatou Kiné Gaye bàyyi sax jigéenu Madakaw yi fekk leen siis fekk leen siis ñoom ñëpp ba leen soxlaa fekk leen sama xel benn politicien xamu leen ci kër ñoom 36 groupement yi benn demuñu kër kenn seen solidarité lañ ñëpp di jàppale leen ci seen biir ku ci am soxla ñoom jigéen ñi ñoo koy liggéey seen bopp la ko defee suñu kër ku ci am soxla si frigo ñu jëndaloo ko nga dem liggéey ku ci am soxla si machine ñu jëndaloo ko nga dem liggéey ku ci am soxla si xaalis ñu lebal la nga dem liggéey ñu nekk ay plan de développement nekk ay plan yu am valeur élection locale yu jàll 30 oto la woon Serigne Fallou Mbacké jox doon ci 20 oto ñu jox leen ko ñoom ñii te ñoom ñii lañ ko jox ñu ko joxale nga nii ci saal bi te lañ defal élection locale kaw lañ ko gën a mën a def élection législative bokkoon na nag ci seen engagement yi rek président Macky Sall na recevoir Modakaw li tax nag ñu leen ko def bu ñu toogee di ko xaar day mel na dañuy chantage wala day mel ne audience bee tax pour ñu dellu si mais nañu xam ne Madakaw bi ñu koy créé dañu ko créé ngir ko ngir ñu xaar ay audience te li Baye Cheikh Bara wax léegi moo nekk bu audience bi amee incha allahu rabbi danañ def li ñu war a def bu bi amul danañ yokk li ñu a def def ko ngir ñoom ndax la doon dellu si kon Baye Cheikh xam nga leen président Macky Sall ne ko ñi ñu defe naa ne kenn gënu jeexee Madakaw man ñii di wax Fallou Diop ak waa mouvement Madakaw liggéey nañ ba liggéey néegu bi yàlla ak nga xam que meeru Touba mën koo seede ndax moo ci jox quarantaine junni Macky Sall liggéey ba liggéey te benn président Macky Sall ca la sabab ba liggéey meeru Touba mën na koo seede ndax moo ci jox karawee yéen liggéey boo amee nag jëmm yoo xam ne agsi nañ ci yow ci foofu di la taxawu ci lépp ah boo dee recevoir ay nit ngir lu leen yokk ngir seen liggéey ak département war nga ñoo recevoir parce que nag ay jeunes opérateurs économiques ay plan de développement la ñu àndal. lii lañ ne li leen leen ko wax maa ngi sant sama xalifa Isma Diop. bi ma ne ko damay génn si benn bokk yaakaar Isma mi toog. dana ma dinaa la jox juróomi oto mi ngi ni toog. waaw la jox juróomi oto képp ku ma xam ne dina la mën a jàppale dinaa la boole moom dinaa leen jox bi bés bu nekk. bu ko di sonorisation boo gis wax moom la ñu ko kat naa la jàppale. dafay jëwali. mënu ma bàyyi te sant ma sama yàlla Sall Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Cheikh Abdou Lahad Mbacké moo la wax ko sama bopp. bu ma defoon ni ñëpp a dégg ma sant ko ba ñu ko dégg. sama yoon dafa yëg taxawaayu ma ne kaaw musuma ko gis nag pour ma leer sama yàlla. mu mu mel musuma ko gis. mu jël téléphone am woo ma ne ma Saalum joxe dara ba seen su nekk la am génne femme moom woo ko waxal sam yàlla woo ko. kon nag bi ma woowee ba ko waxante Sèye Blac génne femme moom Sèye Blac génne femme la ko woo sant ko ci jëf ji mu def mu ne ma dinaa jàppale Madakaw ci li ma am ci lépp ndax yëg naa seen jàmbaar ak seen lépp loolu nag mooy Madakaw Sèye Blac ñii bi ma jàppalee ci dama lii dama leen ko jox rek ngir ngeen def déclaration mais incha allah dinaa leen jàppale waat dama ko ko wax mi ngi ñu jot. bàyyi Cheikh Bara Gueye ñu nag ne ñëpp yëg ne quatre-vingt-dix pour cent ma jël si waat benn bokk yaakaar gannaaw investisseur agressif bi jëmmal ji bokk na ci. di ak waajur li ñu woon ñaar kenn la ñu ma xam ci dudut jeex Isma Diop ñu la seede di nekk ci liste ma di ko wan gannaaw di woote beneen liste xalaat bi ma ko jàpp dara rawatina Sénégal ak yenn Fane moo tax bi ma woowee ma ne ko bàyyi Cheikh Bara lépp lu ma jàppoon bàyyi naa ko dinaa dellu si benn bokk yaakaar ñu tëjee foofu suñu kàddu di sant ñëpp.